ne maa ngi a fay. tey da nga def sa a baax. <laughs> merci beaucoup. macha allah ça va lu bees. ça va bien di di nuyu Alioune Alioune Sine hmm? <laughs> lay ziar bu baax a baax. ziar bu noonu su tey baas muut. suñu artistes yi nga xamante ni depuis <laughs> Pikine. international ah, ñu ngi koy nuy Seka bu baax a baax. Hmm. di nuyu di yow mag bi. macha allah ziar naa la tey lan nga ñu indi si jonge tey la andil naa leen li nga xamante ni moom moo nekk euh, cëslaay quoi. Mm-hmm. sauver sa ménage nan nga mën a sauver sa ménage ba du divorce du am. très bien muy lu am solo loo <laughs> xamante ni euh, yaakaar naa ni ñu bëree bëri dinañ ko teewlu bu baax a baax waaye itam ñu am benn invité boo xamante ni macha allah kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal euh, dama lay bàyyi di jékku comme ni nga koy taamu di ko defee. da dalal ki nga xamante ni moom moo suñu invité tey. voilà merci beaucoup euh, madame Mbacke Awa Konté donc ñu ngi euh, nuyuwaat mbokki xaritu téléspectateurs yi amaat mbégte dellusiwaat ak yéen tey ci plateau Petit Déj ci rubrique xamante ne euh, dañu ci àndaat rek yéen tay euh, sànq nag bëggoon naa jaxase gi euh, mais gis naa ni Aliou yaramam tàng na te bëgguma woon temps bi jeex na <laughs> bëggoon naa ci intervenir mais mi ngi noonu ayca hmm. donc ñu comme ni leen ko diggee woon Secka lëmbalu naar di un pur produit de la banlieue moom lañu ñu dalal tey ci seen émission petit déj ci rubrique musique bi alors Secka nag dinaa ñëw léegi-léegi wax leen li tax ñu porte suñu choix ci moom tey euh, pour indi ko ci plateau bi euh, d'abord ñu ngi koy nuyu Secka waaw maa ngi lay fay DJ Cool di nuyu téléspectateur yu Walf TV yëpp mhm. euh, commencé nuyoo bi nag ci yow ndax yow suñu rakk nga mhm. suñu xarit nga te ñu ngi rafetlu liggéey bi ngay def jërëjëf nuyu Aline Sow madame Mbacké Mass Balde bi nga xam ni moom ñoo bokk dëkk. muy suñu rakk di suñu soxna. macha ndax borom këram suñu rakk la. ñoo ngi nuyu ñëpp daal di am mbégte ak bànneex ci jàkkaarloo ak téléspectateur. waaw tey. <laughs> ci laa doon ñëw léegi parce que mooy ban style. non bii mooy bu Guinée. <laughs> suñu mbokku pël yi. <laughs> xam nga xam nga moom. macha allah moom cest à dafa am benn style bu particulier uh-huh. euh, moom Seka mooy. Euh, artiste la boo xamante ne intégration daf koo ñor. ndax boo xoolee ci biir ay woyam def na fi lëmbalu naar dem ci naar yi jël seeni affaire ah def fi lëmbalu pël ah dem ci pël yi dellu si waat ah, bon way na way na lu bari nag ah. c'est que wax dëgg neex yàlla bu ñu retracé parcours bi ah. mais dafa delluwaat ci pël yi man nag j'aimerais bien savoir moom diggante ak pël yi lan la parce que euh, dafa dellu si euh, bi yoon ak beneen euh, style ak beneen son bu mu tuddee dippee mi salminima waaw boobu delluwaat ci pël yi tey nga ñëw man li ñu wax lu waaye du mu yow da koy nduru delluwaat maanaam ci colinu pël yi diggante la. waaw xam nga mbir mu nekk damay faral di wax ni lépp loo gis rek. am na lu ko waral. gis nit bëgg ko taar dina ko waral. dégg nit bëgg ko mbaax dina ko waral. waaye miin nit bëgg ko jikko moo koy waral. Euh, sama diggante ak pël yi cette fois si dama dem ba Guinée nag. dem ci pël Fuuta yi. Mhm. parce que damay faral di wax ni su la nit di bégal ci li mu mën. yow mënoo lu dul delloo ko njukkal rek ci li nga am mhm. te ñun amuñu lu dul suñu baat mhm. yàlla boole ñu nag ak euh, suñu benn jigéen di suñu xarit ñu koy woowee bint Diallo moom pël Fuuta la mhm. ñuy séq teraanga yu ne nag ak boroom këram Serigne Mbaye Fall bi ñu demee ba suñu xel nekk ci njukkal ko mënuñu lu dul nag dem ci la mu nàmp dem ci li mu kii pour delloo ko ci njukkal. loolu moo waral ñu def morceau bi tudde ko sax ma mais mais pourquoi pas Serigne Mbacke Fall au lieu de Binta euh, Diallo Serigne Mbaye Fall Serigne Mbaye Fall au lieu de Binta Diallo parce que Serigne Mbaye Fall euh, boobu je pense moom mooy seen wóllëre. waaw pourquoi léegi wala sëñ bi nga bëgg am jaare ko ci soxna si. non non boo gisee morceau bi. Euh. xam damay way benn couple boo xam ne. Hmm. jëkkër ji lébu la jabar ji pël Fuuta la. Hmm. au lieu que ma ma ma ma way ko ci lébu kese wala ma way ko. dama xaat morceau bi ci digg bi. Hmm. première partie bi ma woy ko jabar ji deuxième partie bi. nga woy ko jëkkër ji waaw. ngi noonu euh, c'est toujours ak euh, intégration donc euh, jamono yi ñu génn il faut ñu dellu si waat tuuti yaa ngi woon ci ay événements. yoo doon préparé yu mag. ci ay initiative yu mu jël déjà sax bokk na ci li tax ma gën a tey jël choix wu invité ko. Mm-hmm. mooy ñoom. bay nañu seen waar ci maanaam métier bi. Mhm. c'est que kenn dootu ko présenté ci seen bi. mais euh, mu ne ma euh, di Cool man dama bëgg désormais artistes yi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue bi xale yi. Mhm. Euh, chaque année ma am ku ma ci feeñal. Mhm. ci produire ko defal ko clip nit ñi xam ko quoi. cest à pourquoi initiative boobu. waaw initiative boobu nag maa ngi ci gërëm nag suñu maire gox Modou Gueye parce que ñoom groupe. maire bi maire bi laa waxtaanal ni leen acteurs culturels yi nekk ci commune bi wax dëgg yàlla war nañuy gis seen bopp ci mairie bi boo gis ci seen bopp nag du ñu jox leen dara wala ñu xewle dara ñu jàppale leen dara mais li ma bëgg mooy est-ce que di ngeen ma mën a jàppalee ñu fexe ba chaque année même bu dee kenn ñu wane ko parce que comme léegi producteur amatul est-ce que mën nañ fexe ba fexe benn jeune talent ñu fexe ba defal ko benn morceau defal ko vidéo nit ñi xam ko jaarale ko ci mairie bi. Mm-hmm. moom it wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm mu ànd ceeg man yombalal ma ko. Mm-hmm. bo ñun tamit munuñu lu dul nekk euh, ci dara. Mm-hmm. ba nit ñi xam ñu ci suñu doom wala suñu jarbaat wala suñu rakk yi nga xam ne ñun la ñuy roy ba bay def loolu comme ñoo leen xaw a ëpp baat tuuti. Mhm. ñu fexe ñoom it ba mel comme ñun. loolu rek lañ ci jóg mhm. loolu rek moo doon initiative bu 72 heures bi ñu def ren. mais mais damay dellu si waat toujours ci maanaam euh, côté rentabilité musique bi. Ah. parce que loolu bu ngeen koy def c'est pour gën a maanaam dundal musique bi la. Mhm. pour que musique bi gën a yokk ci ay produits. am euh, maanaam ñoo xamante ne dinañ ko mën a euh, exercer. mais musique bi xaalis bi mu doon am taxoon ñëpp di ci dugg gisatuñ ko amatul. parce que maanaam yu ci bari jaayatul. donc à quoi ça va maanaam renforcer waat booy yi pour ñu gën a way waaw waaw xam nga xam nga musique moom man mook mook mook euh, journaliste la pour man hmm. euh, moo ñu ñoo yem quoi passion la hmm. maanaam ki ko xis bëgg passion boobu xaalis quoi boobu waaw mais xam nga passion booy am xaalis bokk na booy kii de xam nga man jàpp naa ni journaliste bu dëggu <laughs> hmm. euh, du bari xaalis ah bon waaw waaw <laughs> parce que dañ koy bàyyi ak far fenn dëgg rek koy tax a ñor dëgg waaw mm-hmm. man pour man mais booy wax dëgg euh, du la tere ñàkk xaalis mais du la teye am xaalis mais dama ni comme ah. ñun li ñu gis ah. foo nga far fenn pour di fa a dara mais mais ki dëggu moom euh, day boo fareeg yow sax bu dëgg jotee da la koy baax mhm. euh, pa tamit sama xalaat la rek ah du mhm. looloo am waaw waaw loolu laa <laughs> jàpp quoi mhm. musique tamit bu fekkee da nga ko bëgg mu nekk ci yow xalaatoo ci xaalis wala dara man tey nga wayloo ma fay ma dix mille moo ma gënal nga liggéeyloo ma fay ma cent mil ah mhm. parce que sama passion nga may defloo loolu la te comme am na xale yoo xam ne bëgg nañ ko ñàkkul koo xam ne Secka la seetaan mhm. télé wala moom la déglu ba tax mu bëgg ko ba tax mu fonk ko la preuve mooy xaadim laam booy bi may aw ci sama morso bi mhm. papaam imam la papaam man maa tax mu bàyyi ko muy def musique mais kooku lu ma ko mën a jàppalee war naa koo jàppalee man maa tax papaam ba papaam daf ni ko woon daf ni ko su fekkoon du sa papa Secka du ma la mës bàyyi nga def musique mais moom ni ma ko gisee ak ni muy dundee moo tax sama xel daal pour ma bàyyi la nga def ko mais xam nga kooku tey loo ko mënaal war a nga koo defal loolu rek la. alors mais bëgg naa xam sa kaa naka ngay def ba génn ci jamono jii ak euh, euh, ni situation yi demee. certes yaa ngi def ay parfois ay programme mhm. euh, mais est-ce que benn programme rek mën na yor artiste durant un mois wala deux mois wala six mois pour mu mën a survivre. waaw xam nga ñun nag ñoo ngi sant yàlla bu wér ndax dafa am loo xam ne nit ku ne ñaari biir la am. Hmm. muy biir bi ci sa jëmm. ak sa biir bàmmeel euh, sa biir li ci dem mhm. yàllaa ko yor ak loo mën a def ji gémmiñ gu yàlla xar sànni ci feppam mhm. bien vrai que ni ñu doon defe ay activités à l'époque ak léegi du benn ndax ñoo ngi jëm mag euh, tamit am na yeneen euh, gis-gis yoo xam ne mhm. mi ngi ci suñu kanam mais yàlla def na may nañu ay Euh, possibilité yu ndaw yoo xam nañ am nañ possibilité voyager fu ñu bëgg a dem ci àdduna bi mhm. léeg-léeg ñu dem daani suñu doolee léeg-léeg ñu liggéeyi fu ne waaye man boo ma gisee kuul ak boo ma gisul uma benn beneen occupation bu dul musique mhm. ak nag nit ñi ma yàlla booleel parce que mbir boo ci nekkee du ñàkk ñu la yàlla booleel ñoo xam ne lépp loo nay ñu ne moom produit bu raar la ah ci euh, musiciens yi ma xam. parce que euh, am na métier bu mu doon def avant ñu koy muy dugg ci musique. mais c'est cas mooy artiste bi nga xamante ne daanaka bi muy dugg ci musique xàmmee na ñor na. bokkul ak ñi nga xam ne dañoo nekk xale rek dugg ci. te bi muy ñëw itam fekk na fi ay ndaanaan yoo xam ne reconnu comme Mbaye Guèye Faye. Salam Diallo. ñooñu doon yëngal. géem bi mais moom bi mu ñëwee dafa bokk. xaw ma maanaam ndax style bi nga indi moom moo la moo la moo la euh, propulsé noonu rek. Mhm. nga nga nga am position. Mhm. wala euh, ndax nga def ba bokk. waaw waaw mais ni fu def ba bokk ba ñëpp di ko déglu. Eh, def rek ñoo xàll waaw parce que xam nga lu tax xam nga xam nga àdduna <laughs> jaayante moo fi ne. Mhm. maanaam ñëw. def lu wuuteeg liñ li fekk. liñ fi fekk absolument parce que oh, kuy def lu ñëpp di def munoo lu dul yam fanu yam. ku bëgg a def lu ñëpp naan cey da ngay def lool dañ naan lii jafe na. loolu waaw man dama ñëw fekk ñuy mbalax. Mhm. ndaw ràbbi nag kii ma ba fi def indi lëmbalu naar. Mhm. indi loo xam ne kenn xamu ko ci naar lëmbal. waaw dëgg dëgg est yaay dégg pour man nag pour ñu. xàmmee ma loolu <laughs> ñu xàmmee ma. lëmbal naar lan nga taamu ci loolu noonu. Ah, waaw lëmbalu naar mi ngi ma dikkee ci dama am sa benn xarit bu tuddu Yiro Diop. Mhm. Ousmane Diop Ablaye Diop Yero Diop sama xarit la bu may àndal mu takk jabaru naar xew bi nag man maa ko doon animé sama groupe man yàlla def na bien avant may am album sax am naa sama groupe bu bopp. parce que dama doon tëgg di animé ay xew bari na samay morceau yoo xam ne. ci ay xew waaw sa bari na ay morceau yoo xam ne ci ci ci xew laa ko inspiré wu. Mm. bi ma demee am benn group bu naar bu doon animé ñoom ñoo njëkk a joué. bi ñu joué ba pare nag ñoom li ñu doon joué des ci sama bopp après bi ñu installé woo bu bu man leen no tey lëmbalu naar la ñuy def comme ay naar ñoo xewle foofu la ma morceau bi dikkee. yàlla def ci jàmm. mu mu def succès ah. mu def succès dèjà moo ko taal lëmbalu naar xam nga ko Aliou. mais mais man bi ngay def lëmbalu naar. Uh-huh. samay doom ay léegi ay ay mag la ñu ah. Uh-huh. ñu ngi nekk université. Uh-huh. mais ay ay ay quatre ans la ñu waroon am. foog lëmb daal war na am ay 18 ans léegi. si du ay vers ah. les années léegi ay mag lañ léegi. Ah. mais mais dañ doon dem la doon indi quoi des fois. Ah. fekk ci vacances nag mu doon lëmbal naan xayoon. mais après ñoom ñoom bi ñu delloo France. ñoom ñoom loolu rek euh, papa viens viens on fait di yëdde yëdde yëdde naar léegi nag dañ doon teg nañ lay tegee sa loxo ci suuf noonu mais uh-huh. <laughs> li kuy mais li kuy def lëmbal uh-huh. donc loolu lañ ma doon sonalee chaque jour loolu daf leen traumatisé woon nag euh, positivement bien sûr yëddey naar euh, yëddey mais yëddey yëddey naar lañ doon wax ndeysaan waaw parce que loolu loolu dañ ko doon wax ci moom bi effectivement waaw moom moom moom macha allah toutes ces sont sont sont couronnées de succès moom yi mu génne yëpp ay pointure Awa Ndiaye lëmbalu naar lëmbalu pël moom soom yëpp bu génn dafay bomb loolu moom macha allah ñi ngi ñaan suñu borom mu mu continuer ci lancé boobu noonu ak yow mais dafa mel ni blocage dafa am pour terminer ah mhm. xam naa ni mun naa war a ñëw mhm. blocage dafa am wala soawu euh, Secka la parce que moom son yëpp dañ ko doon accompagner ak clip vidéo mhm. mais bi yoon damaa gis mu génnee son ba léegi clip bëgguñ ko waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga xam nga morceau bi nag su fekkee déglu nga ko bu baax xam nga ni morceau bu ñu jël temps liggéey ko la euh, morceau bi presque Euh, liggéey bi def na ñaari at. sax minimum. Mm-hmm. Mm-hmm. bon loolu moo taxoon ñuy jëlaat temps parce que vidéo dafa am solo trop ci morceau. Mm-hmm. man gis nga des fois comme lëmbalu naar. bi may def clip bi gis nga typiquement naar laa ci. bi may def lëmbalu pël gis nga ni euh, pël laa ci. comme bi may def salmi salmini ma tamit. Mhm. incha allah su ko yàlla dogalee bëgg nañ dem ba Guinée. Mhm. fa lañ bëgg a tourner clip bi ba. yow mi nga xam ne li may wax même boo ko déggul sax boo seetaanee morceau bi di nga xam mhm. ni kii lii la bëgg a wax. loolu rek lañ ci jóg mais moyens yi ngi fi quoi pour def ko. waaw incha allah ñi ngi ñi ngi ñaan yàlla daal mm. ñoo waaw xam nga xam nga mbir nag man pour man dangay ngay sabablu rek yàllay dogal te yàlla du yan ku téeñuwul mm-hmm. bu xëyee di yanaate bu day romb ñi def bopp neen ñi yor teeñ lay yan parce que xam ne nit ñii bëgg nañoo yanu mm-hmm. euh, clip ko dina metti trop ndax mm-hmm. morceau la boo xam ne presque ñaari clip lay jël mais daal bëgg nañu def tout daal ba clip bi ku ko seetaan kontaan incha allah. ñaanal ñu daal yàlla yombalal ñu ko. <laughs> man ma ko bëggoon laaj moom mooy euh, Secka ah, macha allah yàgg nga lool ci wàllu musique bi. Ah, mhm. def nga ci lu am am solo. Mhm. tey boo doon def comparaison entre musique gu démb ak musique gu tey. xale yi tey ni ñuy woyee est-ce que euh, fi mu nekkoon mi ngi fi ba tey wala mi ngi baax. waaw xam nga xam nga daa am loo xam ne nag du jikko jamono lay nekk. Mm. waaw jamono moo toll foo xam ne boo xoolee léegi. Euh, journalisme sax fi mu nekk ak fi mu nekkoon démb du benn mm-hmm. euh, loolu àdduna mooy doxe noonu mm-hmm. mais wax dëgg yàlla nag xale Sénégal gis naa ni ñu ngi góor góorlu bu baax mais mais mais bëgg naa daal ñu dellu ginnaaw di def lu am thème quoi. Mm-hmm. thème important contenu am thème quoi. waaw mais gis naa ni nag wax dëgg yàlla suñu rakk yi nga xam ni ñi ngi def comme ñun liñ doon def. wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ku mel ni Dame Sène mhm. ku mel ni Boy Pegaay ah mhm. ak ñi mel ni ñoom ñëpp Bass Thioung ñoom ñëpp ay vraiment ay géréel lañu wax mhm. dëgg yàlla ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi def li ñu mën quoi vraiment mais daal nañu nañu koy nañu koy koy gën a thématiser. nañu koy thématiser muy maanaam njëriñ bi na ci feeñ quoi. effectivement bi surtout. waaw c'est important parce que way pour way rek wala way pour ambiance rek. Uh-huh. dëgg dëgg euh, taxul way am njëriñ quoi. Uh-huh. parce que loolu fecc rek nga koy def. Uh-huh. mënuloo ci jëlee dara. donc loolu ñun dañ koy xaw a euh, wax dëgg neex yàlla di ko déplorer c'est important. mi ngi noonu donc lan mooy. Euh, menace waaw li ma ko bëgg a laaj pour moom en tant que doomu pikin bi mu doon. Mhm. donc ñun ñu ngi koy xaar ci spectacle yi mu daan def Pikine. Mhm. donc ñun li tax ñuy jéggaani dañ naan kuy jéggaani sa kër a tëggul. Mhm. mais ñun suñu star la suñu fierté la. parce que ñun dañu judd ñun ñëpp moom rek lañ xam. mu dëkk ñun dëkk bu nice nag. mais dañu bëgg mu indiwaat équipe bi képp kuy xew. ñun nañ dem jëli caamaas. nañ dem nañ dem jëli seka quoi. donc loolu laa xamul lu tax nga arrêté ko wala yaa ngi waaw non arrêté wu ma ko euh, jamono yi passé comme ni nga ko xamee nekkuma fi woon maa ngi woon États-Unis mhm. te wax dëgg yàlla tamit manu gan eggagul ci berndeel ku teewul loo mën a mën a mën a ganale noo ganale ku ñëwul. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla nekkuñu fi woon ñu ngi woon bitim réew. Mhm. waaye incha allah ñëwaat nañ incha allah bëgg a def. comme liñ doon def bu soobee grand théâtre bi wala Sorano bi mun nañ la comme d'habitude ni grand théâtre mbay ak Sorano bi nag comme ni ko DJ Cool waxee léegi. Mhm. léegi dama ko décentraliser. Mhm. indi ko ci dépa euh, ci ci ci sama. commune ci banlieue bi di ko ah. def euh, Djiddah Thiaroye Kaw mooy soixante-douze heures culturelles. Mhm. bi nga xam ne dama koy def day am caravane day am concert am consultation gratuite. li ma ci jublu tamit mooy comme li ma la wax rek dama ci waxtaan ak euh, DG domaine. maire Djiddah Thiaroye Kaw Mamadou Gueye ba chaque année ñu koy def ci gox bi. di ci dimbali nag acteur culturels yi ak suñu xale yi nga xam ni. Mhm. ñoom ñoo ko parce que mën naa koo def Sorano am na ñoo xam ne. Mhm. munuñoo munuñu laa fekk fu dul Sorano. Mhm. waaye ñi nga dëkkal tamit di leen may benn privilège boo xam ne su fekkee ci biir commune bi nga ko defee dinañ mën a déplacer wu facilement ñëw. bu fekkee si ko quoi loolu rek lañ ci jublu ah. mais euh, Cool dafa am benn image moo xaw a marqué ma bëggoon ko xool laaj rek. parce que dañuy gis ñoom seen clip yi clip yu bëree bëri avant. xëy na ñi ci fecc sax dañ daan sol loo xamante ni dafay xaw a yiw mais léegi dañu gis que seen clip yi da ngeen ko changé. lan lan lan ngeen ci jublu da ngeen bëgg gën a am ay vues wala gën a jaay seen clip lan moo tax léegi yëf yi dafa changé ba si colin bi. non comprendre ma loo bëgg a wax. maanaam tey jii boo xoolee clip bi image yi mais ñi nga xam ne sax dañuy fecc ci clip bi mhm. dañuy sol loo xamante ne xëy na xaw naa yiw mhm. mais léegi dañoo gis ni que mhm. image yi dafa changé bu baax a baax ba si ay clip sax jot naa ko cee euh, euh, seetlu léegi colin bi dafa changé bu baax a baax a baax lan moo waxal lool xëy na yéen vues yi ngeen ciy seet wala da ngeen bëgg a gën a jaay seen ay clip no xam nga xam nga mooy ne ma la doon wax rek sànq mm-hmm. ni la du jikko jamono la man boo seetaanee sama clip bi pointir la tudd xaw ma mm-hmm. ma ko. Mm-hmm. mais da ngay gis dañ ciy sol luy jot dañ ciy sol. voilà foofu lay waxee euh, mais xam nga nit ñi tamit. bon xëy na man li may bëgg ak li kuul di bëgg wala li madame Mbacke di bëgg wala Sow du mën na bañ a nekk benn mais mais man daal. Euh, nit ku mooy li ma lay wax jamono moo toll foofu rek. ñi ñu jàpp ni maanaam sol lu sexe wala wane lu sex mooy tax sa sa clip. jàll wala dara. mais man daal gis naa ni daal euh, toj sa xel def lu neex. mooy tax say vidéo di jàll ak say morceau. man boog mais mais ci biir loolu c'est-à-dire am na rôle boo xamante ne euh, waa Sénégal la xaw ma euh, waa waa waa ARTP xaw ma ñan la ci. Mhm. am na rôle bu ñu ci doon joué mooy que bu clip yi musaan obscène dañ koy censuré. Mhm. waaw duñ ko dootul jàllati. Uh-huh. léegi nag xëy na peut-être ñooñu ñoo defatul liggéey bi comme ni mu waree. Ah, ba tax gars yi lu neex du génne quoi man mës nañ censuré sama clip. oui euh, censuré lëmbalu naar. oui loolu amoon na. dañ ko si dañ daan ça existait dañuy censuré. après bi ñu ko censuré nga defaraat ko wala. non non non parce que bon du woon sol buñ ci sol wala dara. mais hmm. bi ñuy censuré lëmbalu naar c'est parce que naar yi la. morceau bi neexul. ah woon naar du lëmbal morceau la boo xam ne daj naa ci ne ah. mais loolu c'est carrément na noonu la naar yi yenn ci naar yi. dafa amoon yenn ci naar yi yoo xam ne parce que man lëmbalu naar joué naa ko Mauritanie ba tàyyi. <laughs> mais am na naar yu nekk fii Sénégal. ñoom benn euh, amoon na benn association de mœurs <laughs> mais loolu raw nañu de boobu raw nañu <laughs> eh, dañu censuré woon clip la naar dañ ko censuré woon Sénégal pourtant def ci seen xayma ah. mais loolu lëmbal de Aliou loolu lëmbal <laughs> loolu fecc la rek mais yaa ngi wax léegi sa doom yi dañ doon que dañ doon gis fii ñi waaw mais noonu la feccee lëmbalu naar moom la fecc yow nga wax bari na bi muy génn bari na tegal tike nga woon c'est nga waxoon nga boo koy fecc nga ne def yaa ko expliqué ñaari loxo ci suuf <laughs> waaw waaw tegal tegal sa ñaari loxo ci suuf suuf di lëmbal lëmbal mu sew di dem ah. <laughs> loolu mooy lëmbalu naa <laughs> waaw waaw mais nag après ñoom après ñoom dañ ma ni dañ ma ni dañ ma ni naar du lëmbal hmm. naar day mais xam nga rek Euh, ak li ñuy def. Mhm. Euh, li ma ci jé parce que ci commencement morso bi yaa ngi dégg ma naan morso bi ñu ngi koy may waa gànnaar. Mhm. ndax diggante Sénégal ak gànnaar. Mhm. benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar tout à looloo tax ñu jël way wi tuddee leen ko. macha allah intégration rek laa ci jublu woon. comme ni ma ko jëlee ci bi may def Gambia comme bi may def morceau Salminima bi aussi. Uh-huh. très moo ñu projet yi balaa. waaw tout à fait loolu laa ci laa bëggoon ñëw perspective yi euh, li nekk ci sa kanam. Mhm. Euh, tey si y a un de cœur loo xamante ne tey bëgg nga ko euh, maanaam wax fii. Mhm. pour mu saafaraw wala bokk lan mooy li nga xamante ne moom moo nekk sa kanam. waaw waaw li nekk sama kanam pour l'instant mooy maa ngi nekk ci bëgg def nag vidéo boo xam ne wax dëgg yàlla am na am na différent ak yi ma doon def. Hmm. parce que. gis nga morceau bi cool déglu nga ko. Mhm, gis nga euh, liggéey biñ ci liggéey. Mhm. bëgg nañ euh, ni ñu ni ni liggéey bi mel ba képp ku ko déglu. Euh, bég ci noonu lañ bëgg vidéo bi bu génnee tamit ñëpp bég ci. Mhm. incha allah ci décembre bi bëgg nañ suñu suñu suñu album génn. bu album bi génnee tamit bëgg nañ def événement bu mag comme ni ko ni ko Munaas waxee. ànd ci nag ak. toujours ak ñi nga xam ne ñoom lañ juddool mm-hmm. ndool ñoom lañ yaroo ndool comme foofu lañ màggee muy banlieue bi mm-hmm. incha allah ñi ngi lay sant di la gërëm Secka euh, di rafetlu vraiment teewaay wi uh-huh. donc di la wax ni ñun ñu ngi sa ginnaaw comme d'habitude rek uh-huh. euh, a fas yéene àndandoog yow ci carrière bi waaw waaw man tamit maa ngi am mbégte nag ak bànneex trop di ñëw Petit Dès wax dëgg yàlla ñëw naa fi ba tàyyi mhm. ak DJ Maxu ñëw naa fi ba mhm. tàyyi invité nañ Maxu waaw sama frère la sama xarit taalibe Serigne Babacar Sy mais maa ngi gërëm ñëpp di am mbégte nag ak banneex ci sama nit ñi nga xam ni lépp lu ma nekk ñu ngi ca. ku mel ni Boucar Chadji ku mel ni Ousmane Diop Ablaye Diop sama xarit yëpp daal maa ngi leen di nuyu Youssoufa Ndoye maa ngi nuyu ñëpp di leen wax yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ndax ñun amuñu lu ëpp réew mi mm-hmm. élection yi di jub si yàlla ci yàlla def jàmm ñu dugg ci ak bismillah génn ci ak alhamdulillah mm-hmm. ku yàlla jox réew mi nga jiite ko yàlla oyofal ko ba li sénégalais yëpp bëgg nga defal ñu ko très bien mi yàlla mu am na solo macha allah merci beaucoup Secka mhm. yow itam ñu lay jaajëfal di jeeku merci madame Mbacké Aïcha mi ngi noonu liggéey bi amoon na solo dañuy